alors euh, juste balaa may démarrer ak yow xam naa dinañu waxtaanee waxu foncier. Mm. Euh, mais comme Sénégal léegi euh, fen daf fi nekk culture ak manipulation euh, boo nee garaawul nga noppi am na ñoo xam ne ndeysaan ils sont de bonne fois mun nañu gëm li ñu leen di wax dafa am ñuy dawal benn tag sur Facebook en disant Maimouna Ndour Faye am na. cinq terrains à Wakam quatorze terrains à Rufisque trois terrains aux Almadies six terrains ak <laughs> Guédiawaye euh, c'est archi faux euh, bon ñi ko def nag c'est des c'est des c'est, c'est des esprits tordus euh, gis naa campagne de diabolisation bi ñuy def euh, di ko jëmale ci ni ñenn ñi euh, doon na ma doon jaaxal trop ma rëcc si man Maïmouna Ndour Faye à part kër gi ma dëkk aw ma un mètre carré au Sénégal surtout toute l'étendue du territoire je n'ai pas eu l'honneur euh, de voir mon nom figurer sur une délibération te moo ne yelloo naa ko bu ñu ma mayoon état du Sénégal bu ma mayee terrain dama ko yelloo parce que man je suis un entrepreneur euh, je participe à l'économie au développement de ce pays la cette TV c'est une grosse c'est une grande entreprise fii téeméeri nit ak lu teg ñu ngi fiy xëyee saay bu nekk yàgg naa nag tàllal loxo président Macky Sall ko président may ma terrain ma ma tabax siège luwaas bi dafa metti mais je n'ai pas eu la chance donc cette information là elle est archi faux donc li tax ma koy euh, ma koy euh, weddi dafa am rek ay nit yu baax des gens très sérieux qui me l'ont envoyé euh, ma jàpp ne rek ne ni ñu leen induire en erreur mun nañu induire beaucoup de Sénégalais en erreur tey di wax tamit am terrain du crime am terrain du crime état du Sénégal jox la terrain du crime nañ jaarale yëf yi ci yoon rek loolu la ñuy laaj mais euh, il faut pas que euh, wut richesse nekk crime dans ce pays là il faut pas que euh, wut terrain terrain bi domaine national la sénégalais yi ñoo ko moom dañuy wax nag buñ koy jox sénégalais yi nañ ko jox ci anam yu leer yi c'est-à-dire ñu bañ jox ñee cinquante hectare man may Maïmouna Ndour Faye ma nekk chef d'entreprise am média war a am siège mënuma am sax benn terrain aw ma un mètre carré sur toute l'étendue du territoire national et je pense que euh, première délibération bi may am Bassirou Diomaye Faye moo ma koy moo ma koy may moom moom moo may cinq 500 mètres carrés ma tabax ngandam siège <laughs> donc euh, juste petit démenti Abdou Mbow <laughs>